Omar Barry de réclamer justice en cette âme. Je veux juste qu'il m'explique pourquoi il a pris mon enfant mon ami yéen kaa di libération xëy lu doy waar te xew ca quartier Kantène foofe ca Ziguinchor yéen kaa bi ne fa la ñu jëlee xale bu jigéen bii di Maymuna Bari ci bëccëgu fukki fanak ak ñetti ci weeru janvier atum 2020 waaye ci ëllëg sa lañ ko faat rendi ko libération ne ka def loolee di Ngala Cuda fekk baax ca Guinée Bissau doon ab dessinateur toll ci ñaar fukkat ak juróom benn Ngala Cuda ne gannaaw ganaar ak béy gamu faat ca la ne am lu ko xamal ca la ne am lu ko xamal ne faw nga faat ab xale bu jigéen Ngala Cuda ne ca la jël Maymuna Bari toll ci ñeenti at daal di ko faat anam yu doy waar xaar maanaam saraxe ko libération ne Omar Bari di waajuru xale bu jigéen ba te moo ne de Ngalla Cudda xaritam la ci biir yéenekaay bi Omar Bari ne ba tey xamul li xew bëgg na xaritam googee di Ngalla Cudda wax ko li xew ak li tax mu sànk doomam bu jigéen libération ne Ngalla Cudda googule ak musiba gamu def brigade de recherche bu Ziguinchor mujjee na ko teg loxo ci bëccëgu juróom-benn fan ci weeru août 2021